amna sax déjà une une une ñu watt bu boole bu ñor bi ba paré ak aussi bi nga xamni ci mom ñorawul ñoragul bok boog yi yi ñuy ñax mooy yi ñi baxal pour rek man ko man ko concerne bii mooy bu xam nga ni bu ñorul bi ñëpp moo dàq. te te fi mu ne nii toutes les substances xam nga ñebbe mom dafa riche mom la ñuy wax la viande des pauvres. ndax lepp lu lu am ci yàpp mi ngi ci.

ah bon. man mosuguma moo xool moom mos ba xam. man nag mosuma koo mos. mais c'est vrai de. est-ce que xam nga ñun xamuñu wuñ ko nii. ah lii de wax dëgg yàlla. man de ba may daan su ma demee vacances xombal. sama kër maam. mën nañ mën nañ ko xolli teg nii. damay sàq rek sama maam naan yow lii noo ko mën xaaral ba ñu def ko ndambe ma ne ko waaye yow. bàyyi ma rek <laughs> ma ma ma dóor ma dóor en attendant waaw. waaw et puis yéen seen ñebe gi dafa neex sax. ah waaw bi dafa neex si. waaw ah, dara bi après ngeen koy yóbbaale fii rek ngeen foto ko ne bii mooy ñebe bi ñu gën jëlee ah. xam naa ne aussi loolu aussi bokk na kii bi. yóbbu ko ñi ci defal ndam beeg ngeen waaw waaw bu pare ah. ko ba pare. ok comme aussi commencement la. Mm-hmm. yi ñoo jógee Louga yi jógee Dakar yi genre mm. mu nekk peut-être benn galerie boo xam ne si ku ñëw siège la ko fay fekk. effectivement village bi wala boog waxee. non oh, oh, ñu ngi koy ñu koy def déjà. gars yaa def euh, l'album. ah voilà. on va faire comment on va faire tout le tour du Sénégal Am zone bi mom. zone bi mom dafa am lumu atane lumu atane. parce que sol dior, bi mom sol dior pur la du sax dëkk joor bi am ñu nane amul différence sol yi mom li mu àttan ci ci culture dafa brûle donc c'était gerte laa tonne ñebbe geeg dugub beeg yoyu mais atane lu bari mais nak il faut mettre de l'engrais parce que des sols pauvres en en minéraux affaire idée day c'est que c'est des sols qui ne retiennent pas parce que perméabilité donc le day dugg ci biir loolu motax il faut mettre de l'engrais motax tax gis nga différence su fi ngeen def engrais fi ngeen def l'engrais c'est des sols qui ont besoin de ça donc comme yéen a ngi ci élevage bi da ngeen fay dajale yépp ci truc su ngeen ko lalone voilà, euh, quelques semaines avant Comme comme mu premier temps, il fait ko ça c'est autre chose ça ça allait produire des choses extraordinaires mais c'est l'expérience c'est une première expérience et déjà ce ngeen ci def moom macha Nous sommes le 15 et le 16 juillet. Hmm. et nous sommes le 25 donc à peu près 2 mois 15 jours. Hmm. mois jours maximum. donc ce qui veut dire que bon fini. c'est trois mois daaw ko weesu mais avec avec avec euh, ce type de de semence suñ ko fexe ba ba ba euh, ba sol bi ñu enfumé waaw kon la presse kon léegi. kon suñu jógee fële soo ko def déclaration fële. yam ñu koy jël naa ci mooy maa ngi ciy nekk wala loo bëgg def fii ñu ne ñor saabu yi ñu dal lañ ko ay saabu bi def c'est bon très bien mooy looy ndaale woon ana gomboy non yéen kay sama kay. yéeme na on va faire minimum 3000 kilos. Nabou mu ngi station wutal benn. ana beneen bi. mais bu leen bu leen ñu waxoon duñ ko mën a jël non da ngeen arrière nii arrière leen tuuti. arrière leen tuuti arrière leen saa waay arrière leen. may ko tuuti mu waay. voilà may ko mu jël. Abbas ah dafa ni. ana Mame Mbaye ana Mame Mbaye. Mame Mbaye. Mame Mbaye kaay. Mame Mbaye.

olof laay wax de. olof non waaw olof après ñu français. wu la <laughs> man dégg ma tubaab. président yaa euh, ci ñaari tool yi nga xam ne yaa ko initié woon muy dugg ci cadre VAP léegi ñu xam sa impression par rapport ak euh, tool yi alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax bi ñu may ñu teew.

mais muy tournée nationale bo xamné ne nañu dal bu neexee yalla def ko fépp ci Sénégal li ko waral nak moy euh de tournée comme tournée ñu tamon di gis ci walu politique mais tournée de travail la tournée citoyenne la ndax ñun ñoo woté won bi nawet gi di door ñu woté wo Sénégal yépp rawatina nak ndaw ñi E ci biir ndaw ñi rawatina ndaw Pastef ñu woo leen ci ñu dellu ci mbay mi ci kaw li ñu xam ci solo si mbay am ci koom-koom réew bañ ko wootee jàppoon ni euh, année bi atu ren mooy li ñuy wax année zéro mooy comme dañ ko yéex dañ ci yéex a jóg toog ba mois de juin nga xam ne nawet bi dugg na nga woote ci mbay day dafa mel ni daal c'était presque trop tard ñu ne woon donc suñ ci amoon benn wala ñaari tool yoo xam ne euh, day day doon misaal expéri tool expérimental suñ ko amoon rek doy na sëkk ba année prochaine ñu gën ko waajal waaye yàlla may ñu nag ñu ndaw ñi wuyu suñu ci lu kawe suñu jot ndaw ñi jigéen ñi laa war a wax sax ndax euh, soo seetee ci ni ñu organiser section yi section communale yi def nañu ay tool euh, waaye mouvement yi itam muy mouvement des jeunes wala mouvement jigéenu Pastef ci gox yu bëri ñoom it am nañ seen tool ñu gis nii dafa mel ni Sénégal nag amul départ département boo xam ne ci cinq département yi daanaka amul boo xam ne am na ay ndaw yu fa jël initiative daal di ut nu mu tuuti tuuti benn hectare ñaari hectare ñetti ñeenti hectare ba. Euh, lu ëpp vingt hectares comme ni ñu ko gisee dem Daaru moote daa di sóobu ci mbay mi ñu ne woon donc waruñ ñoo gën a gore comme ñoo woote ñu wuyu si ñu jaadu na euh, niñ ko bëggoon defee ci njëlbeen ba amoon ay gàllankoor ko ñu ne jaadu na doxantu euh, ñu bëri tey ñu ngi ci war déqi commencé nañu wala ñu ngi koy jege ñu ne kon nañu doxantu ñëw seet si nit ñi jaajëfal leen ci liggéey bi ndax liggéeyu mbay dafa métti liggéey bu métti la du toog sa bureau taal sa climatiseur waaye nangu nekk ci naaj bi nangu nekk ci taw bi euh, bay suul yaakaar ci yàlla dong di xaar xamoo ndax dina sotti wala du sotti kon liggéey bu métti la ku la ci mën a wuyu rek dalaa naw moo tax doomu ni beuri na ño xamne tay suñu wote won ne ndaw ñi dem len bay di nga am ndaw ñu beure beure beuri ñuy takku dem bay ji kon lolu suñu ngor moo ñu exiger won ñu ñew jaar fi ñu mëna jaar yépp jaajeufal len encourager len da wax len ni li luy door kessel Len ci Sénégal yépp boko dajalé li nit ñi bay war na dépasser 450 hectares ci année bo xamné année bu njëkk la te dañ ci yéex a jóg lay suñu mbébét mooy fii ak année bii di ñëw ñu mun a egg deux mille wala deux cinq cent wala lu ko ëpp ci ay hectares yu ñuy bay kon loolu moo na taxoon tey ñu ñëw bi ñu ñëwee njëkk nañu visiter toolu bi nekk boor bële dëkk boobu daam ba ñu demee gis nañ lañ fa liggéey ñoom liggéey nañu ci li ñuy wax euh, culture fourragère nga xam ne mooy mbay moo xam ne jubluwaay bi mooy dundal euh, euh, jur gi ñu bay fa lu bëree bëri lu am solo ñu bayit loo xam ne ci nit ñi la jëm mooy ñebbe gis nañ lañ fa bay lu bëree bëree bëri ñu rafetlu ko lool man euh, yor naa ñaari saaku ñebbe yoo xam ne jox nañ ma ko su ñu demee dëkk ba bu soobee yàlla def ci ay ndambeeg ceebu ñebbe yu baax ak kecax beeg ñoom seen kon loolu mooy solos mbay mooy da ngay da ngay ñaq dunde loolu mooy solos mbay moo tax réew mu développé rek mbay moo ko téye ñu jógee foofu ñëw fii gis beneen exploitation boo xam ne ci ñetti hectare euh, Seydi Ba mi nga xam ne euh, ci euh, daa donte bala sax ci nag ak bay lañ ko gënoon xamee waaye agronome la xam-xamam màcc ci loolu mu jël initiative moom it ak section communale bi Euh, département bi jàppale leen ñu bay lu toll nii ci gerte euh, dégg ngeen ci présentation am na leen lu ñu bay ci xaal ci beneen fànn wi loo xam ne récolté nañu daanaka ba mu jeex muy donc euh, mbégte bu rëy ci ñun parce que du ma ne nun la waaye amoon am nañ ci luñ ci joué tuuti ci soññaate